Euh, dafa mel ni dem dafa dégg maanaam sa wax ji. Mhm. parce dem démb nee kii di Amady Badiane war woon dem si Adamo naan ko waali lii wala waali lee parce que waali fu mu toll nii dafa sonn waaye tey kii di Adamo moom si boppam moo génn def benn vidéo ne képp nga xam ni farambaareen nga boo ñëwati si moom naan ko ay waali lii waali lee dina teg say audio taf sa photo ne la yow yaay yàqu waali parce que ne dafa am benn dossier spécial bi nga xam ne nii nu ko mooy. yàqkatu waal yi maanaam waa Framaay ñi nga xam ne ñu ngi si biir Waly Seck di leen fay salaire en plus ñu génn di ko yàqal dem nañ sax ba si dugal maanaam kii rakkam Alioune sekk ak jabaram ak kii di seen yaay jaaga mu doon li nga xam ne nit fu mu toll nii dafa mel ni dépasse na Waly sekk mais problème yi mooy gën a xóot parce que bu demee bay dem si ay magam wala ay yaayam loolu leneen la nañ dem déglu kii di Adamo daal di ñëwaat si plateau bi. acca mooy noon mais Ousse. lay woo wax la lay wax bu demee feneen ba nga xamuñu la mosu ñoo wax ak yow mosu ñoo dégg ak yow jël alxuraanu karim di waate kaamil du ay kaamil c'est faux li ngay teg ci kaamil bi c'est faux kaamil bu bu fayoo rek mooy waral lii dama la ñi rekk nam daan laay waxal am na nit ñoo xam ne nii wax nan ba ci jaaga wax ma ci sëyu euh, Alioune Seck bi ak li ko yàq ak ba muy waaj sëy si ba mu ñëwee jaaga réaction ba yooyu yëpp wax ngeen ko léegi ñooñu laay si ñoom génn tontu ma barki Serigne Babacar seen i vocal ñoom maa ngi di xaar dama am benn dossier boo xam dama ko dama ko tuddee dossier yàq Waly Seck Ramadane yàq Waly Seck laa ko tuddee parce que ñoom ñëpp la ñooy demaat ci Waly naan ko aadama ah di waxee te ñoom ñoo lay woo di la sant bu fay di am bu fay di am kay xanaa ñoom ñoo may fay parce que ñoom ñoo may wax loo aadama day jotali rek aadama da naan ko wax rek mu wax ku ma ci woowate ci ñoom dinaa la aviser sa photo. bu ngeen amatee problème sol leen seen i dàll ngeen dem ba ca waari baalaam sekk seen rakk la seen xarit la seen soppe la ngeen waxtaan moom bu ngeen amatee problème na yem ci yéen bu ngeen amatee problème rek leen ko seen biir aadama munu ci dara gis ay mbokkam munu maa waxtaan ak ñoom yéen a nekk ak waali di liggéey ak waali di yoroo ak waali di yeewoo ndoog waali bu dee yéen mënoo leen ko réglé aadama moo leen ci doy aadama li man mooy weer leen te loolu ngeen bëgg i secret ci biir internet bi bu ngeen paree da ngeen toog ci plateau yi ba dëkk ba xamul du ma ko nangu xam ngeen ma yéen may woo vous me connaissez très bien te ñi may waxal xam nañ seen bopp xam ngeen ma bu baax yéen a may woo di ma wax may jottali aadama deful dara day jottali rek enregistrement di ma ko teg parce que lu mu wax ñu ne ko da ngay fekk du dëgg fekk yéen a ma woo dama koy téye coow yi nag pare naa ci du ma ci waxaat ay ñoom Aram Ndiaye maa ngi leen dégg ñu ngi leen di dégg micro ñu naan waa Waly Seck Amady Badiane ak Waly Seck dafa yàgg kenn xajul seen diggante saytaane yi nangam kenn jéemul xat ci diggante kenn. diggante Wally Seck ak Amady Badiane ku ci dugg Amady Badiane moo la ci xajal ndax bu amee problème ak Wally waroon na koo mën a régler li muy yàgg-yàgg Wally régler ko seen ko keneen ko jege Wally mais am aadama mënu ci dara moom moo bëgg ay affaire ñëw ci internet bi pour nit ñi di ko dégg bu paree naan ma dama ci feeñal bul ma ci feeñal ak bëgguma cee feeñ loolu man doogeewu ma noonu loolu mën naa koo d'accord mais boo paree moo ma saraxee man damay génn nii la wax ji demee ku dul naa bu leen tere journaliste mbokki internet yi mbokki internet yi ñu ngi leen dalal bi ñu ngi ki nga xam ne. mu noonu il fallait que mu dugg si alors ak dégg ngeen kàddu yi nga xam ni kii di Adamo yëg na ko lu si gën a fës mooy maanaam moom kenn du ko dugal kenn du ko saraxe. lu xewoon nag si diggante moom ak kii di Amady Badiane yi nga xam ne audio yi nga xam ne nii génne na ko mu yegg si waali tamit yi nga xam ne nii mooy maanaam moom fu mu toll nii muutu toog waali ay son yi nga xam ne ñoo ko doon def wala décor yi nga xam ne nii moom moo ko doon def sax defatu ko même waaye bi voyage bi voyage sax da koy bàyyi Sénégal dem ànd ak ñeneen donc kàddu yooyu nag gannaaw ba audio yooyu génnee Adama moo jàpp ne kii di Amady Badiane da ko bëggoon saraxe Ouz démb moom amati nga ndam sama kaw de ma ko woon de waru woon dem si pourquoi dem si Adama Adama lu mu wax dëgg la. bu ko kenn ñëwati si moom naan ko waa lii waa bu fekkee ni amoon nga problème ak Wally Ballago Seck demal nga janoog kii di ndey ndey mbili gi ne yaa ma def lii yaa ma def lii pourquoi ragal Wally Seck xanaa Wally Seck nekkatul nit. Ah, pourquoi ñàkk fayda ak xeeb sa bopp. fayda ak xeeb mën a fen ah? mm-hmm. ñàkk dëgg. baax nekk si commentaire di bind turu jàmbur bi du ah. kooku <laughs> baax na ànd dëmm la waxoon naa la ko bamtu naa ko ku jekk sa morom di nga ko lekk mhm. bu dee réew gënuñ réew Wally Seck bu dee xamadi gënuñ xamadi Wally Seck bu dee yor waale leen ëpp xaalis bu dee sañse waale leen ko dàq bu dee capable waale leen ko dàq bu dee teg dil ak jaay bandi bandilu waale lañ ko dàq ne woon naa la lum dugalut loxoom moom la neex moo leen ëppi xel fuuf fuuf demuñ ko ci catwe waale bi muy bandi booyi bandi mm-hmm. kon nañ rek leen may yàgg la wax ni ñoom gëmuñ seen bopp mm-hmm. ndax ñàkk gëm seen bopp moo waral ngay ànd ak nit nga jàpp ni erreur lay def nga naan ko cum yaa fi ne. di te loolu ngay wax cum googu ngay wax du dëgg ay fen la. Mm-hmm. nit nag da yaatu. xol bu xat baaxul. waaye àddunaa ko wuy si neex na xar ñëpp ñëw ci moom. yàllaa ko fi teg. yéen ña fa nekk yaatal leen nit ñi rek. te xam ne ku nekk kay ñëw. ngeen war ko savourer. ñoom ñëpp di wax amul ku ci bëgg waale. gisuma ko ay fenkat non Ousse là c'est trop munoo wax ni maanaam Amady Badiane bëggul Wally Wally bu muy ñàkk wala avant di kenn di ko xam la commencé ànd ak moom loolu c'est impossible. loolu wax wax munoo wax ni Pawlish bëggul Wally moom Wally avant kenn ko xam Wally bi muy ñàkk si la commencé ànd ak moom peut-être jalousie mooy am wala leneen mais pas bañ Wally. déggoo li ma la wax xanaa. vas ki yàq nit bëgg nga ko. Hmm? dama lay laaj ay question nga tontu ma moom moo kii yàq nit bëgg nga ko kii yàq nit bëgg nga nit ki. non pour man. ki dem ba ci nit. Hmm. woo nit fay ko xaalis jël ay audio jox ko waxtaan ak moom te naan ko bu ma ci feeñ. Hmm. kooku bëgg nga nit. après nit kooku ngeen tase nga kott ko saafoonteeg moom billaa laa yaa naa fekk te bon. yaa ñàkk xam sa bopp yaa ñàkk dëggu mais peut-être euh, gis na maanaam comme que moo toog na ne maanaam tey jii nii problème gis na problème amee cu ak Wally Ballago Seck fu mujjee te moom buggul bàyyi Wally Seck maanaam ñii xam ne ñoo ñëw ñu tuddee ay fara fara fara cekkee jóge feneen ñëw jël place am mu jàpp ne lii du yoon mu jàpp ne man maa defar waali ba waali ak si fii wala bokk naa ñi nga xam ne nii ñooy defar waali ba waali ak si fii ñu ñëw bëgg jël sama place wala lu ma liggéeyoon yëpp ñu bëgg ko këf ba waali bëgg teg ma si ginnaaw jël ñoom teg ko si kanam est-ce que du lool moo tax mu dem si aadamoo maanaam dafa amul fu mu waxee mun xaawa dem si aadamoo suma ma demee si aadamoo après aadamoo dina ko génnee tas ko bu ko tasee waali sekk dina ko déglu dina mën a delluwaat xelam. kooku bëggoo waali sekk ngeen ko danga ne yaa ci jàppoon man dama foog ni nit boo ko jàppalee moo ba mu fenn mhm. maanaam ay nit fekk si ko sa ndam la bu fekkee soxoroo bu fekkee xajal nga ñëpp mhm. nit boo soxorut nga jàppale nit ba ñëpp teg ko bët ñëpp di jëriñu ci moom ku la fa fekk da war a wax alhamdulilah te xam ne ba nga koy xare kenn nekku fa kon jigadi ko foofu tamit d'accord daal ak yow. waaye nit ki nga nekk ak moom. Mhm. ñeneen ñëw bokk nga siisu kon dangaa ngaa mhm. te yéen ñuy jël ay wax di ko wax keneen ngir mu koy wax maanaam ay baadoo la ngeen. Mhm. te du ngeen ay nit dëgg. ndax ñoom ñëpp comme ci mënti doon Wally sekk foog naa lu mu leen war a wax daa koy wax directement. kon ku ci dëggu mbaa nga am fit gu rëy mbaa nga doon ki nga doon booy wax dangay wax ak Wally Seck mu leer mhm. dangaa jàppal dara Wally mhm. Wally nga jël ko wax ay mbiram wala ngeen jàpp jël ay mbir yoo xamante ne wax ko nit koo xamante ni koo ko wax rek ay métier ak yàq wax wax wax ak yàq wax wax ak yàq ok ngeen ni ko léegi léeg yow xam nga ni kooku loolu daf koy wax te yéen da ngeen war a sàng sutura Wally mhm. pas sax Wally man su may ànd ak yow foog naa moo dama la war a sàng sutura par nit ñëw jugee ca àll ba. Mhm. ma am lu ma la jàppal di la ko wax. loolu non non loolu mhm. loolooy nit kon ñoom ñooy xaaru sutura waale waaye du keneen ki ñuy yóbbante. est-ce que est-ce que tamit lu ma la wax démb fu mu toll nii tamit waroo su bàyyi xel fu mu toll nii Adamo moo nekk nga xam ne nii moom mooy sauveur waale mooy nekk ki nga xam ne nii moo koy protégé ba loolu moo tax mu leen képp ki nga xam ne am nga problème ak waale dama nga jàkkaarloo ba waxoo. sauveur te ci moom. lan la wax si moom. Sovore génne génne ay wili pandeem. non Adama mosul wili pande Wally. léegi ma rek mosul génne ay audio Wally à chaque fois luy defendre Wally moo tax lay def tey jii wax nga ko léegi ne Amadou Badiane moo fi bàyyi. Wally sekk dem si mbedd bi di wax ak Adamo ba moo génne ay audio donc ça veut dire que Adamo moo nekk nit ki nga xam ne nii moom rek mooy toog en direct bu amee lu ko naqari si Wally mu génn daal di koy wax dégg sax mu dem ne waale fu mu toll daa foo loolu c'est la première fois ñu gis maanaam kenn ki nga xam ne day ànd ak balaa Ballago Seck jàkkaarloo moom di ko ko wax gis nañ tamit kii di Pawlish ça veut kii di Pawlish ak Adamo rek ñoo nekk fu mu toll nii ñi nga xam ne dañuy wax Wally Seck dëgg te en plus Wally Seck tamit us ak loo ko mën a défendre défendre li ñu ko war a wax mooy mu gëstuwaat. man défendre ma Wally sekkuma ko sax ak moom koy défendre nu may défendre Wally waaw man ma yaakaar da nga koy defaan. non non non dañ maa laaj. kii tamit loolu la wax. ma wax. waaw ku ci nekk am nga sa gis-gis. xalil xalil kanu nee na borom lu bëri li. Mhm. day défendre waali. waaw ba tey mën na nekk parce que moom loolu la gis kon damay défendre waali xalil fi nga ko jàpp baax la man fi ma ko jàpp it foofu la défendre ma ko may xalil loolu la gis ma ku ci nekk mooy li ma waxoon ku ci nekk da nga am sa gis-gis te nii la affaire yi nii lay neexee ñoom ñi ñuy suivre neex mu ngi leen di bàyyi xel. yéen xoolal amee leen tey partagé rek affaire yi gën a soqale ko Sénégal. gën a jëm Sénégal jëm ca kanam. Hmm. Ah, affaire yi nooy te neex noonu la gis nga àdduna nii la. te la démocratie c'est la démocratie parce que man ni ma gisee moom gisewul noonu pour pourtant keneen ak keneen it mun na bañ a gisee noonu am na ñoo xamante ni pourtant mën na am dañoo gisee ni man. Hmm. man damaa jàpp ni nit boo koy jàppale waroo dem fenn di koy weer. parce que di Badiane doon na koo xamante ni kooku warul teel dara Wally Seck lu mu war a waxtaan ak moom la maanaam da ko cee am comme ni nga ko waxee ba dara dul dara la. mais mais si bi si biir audio bi xaw maa ko wax ko rek si biir audio bi la fait kii di laale chef génn ne Adamo ñu ñuy ànd ak waaye lu bëri lañ ko bëggoon wax mais mu ñu koon wax da ñoo waxal ça veut dire que ñoom ñu ànd ak waaye ñu bëri am na lu leen metti ça veut dire jàpp nañ ni Wally Wally balaa ko sekk dafa dafa changé est-ce que yow changement boobu gisoo ko peut-être gisoo ko parce que nekkoo si biir mais ñu doon ànd ak Wally ba muy ba instant yi noo xam ne siiwul woon. Mhm. tey jii ñooñ bu nee maanaam Wally dafa changé ça veut dire ñoom gis nañ ni Wally dafa changé. mais ku nekk booy dund changement ngay ñaan. mais change négativement je veux dire. changement ngay ñaan ñoom ñoo gis ne va négativement parce que ñoom la seen xol yi ni mu seen xooli xat wala waali moo bàyyi lu mu doon def. non non non. waali moo changé. waali bu doon bàyyi lu muy def barki de mu njaay du jëndaat ay kër sedd séddale leen ko. waali bu bàyyi lim doon def du jël ay xéewal di leen ko jox. waali bu bàyyi lim doon def du leen jëndal ay oto. mais ay affaire affaire nécessité nécessité. yaaram lu leer laa daan nànk rek. nit ki bu la tegul fenn wala fonk la. lu muy def dala ciy génne waali da leen fonk de ku leen jàpp la waali soppeekuwul mais dundin day soppeeku xam nga ban dundin day soppeeku mm-hmm. waali par force par force ñeneen ne ñoo ci waali ay capot ñu yor ñu bugg seen business di dox publicité di dox leneen ak ñoom dañuy ñëw te Wally day toog ak ñoom day fréquenté ak ñoom Wally mais pour pourquoi pas Wally mënul génn oto moom kese taal oto demal boppam dafa lijjant ji ay soxlaam Wally du fu mu toog ngeen toog fa du fu mu ne ngeen nekk fa du Wally lu dugg wax leen ko mënta ne mënta ne dëgg la yaaram loolu mënta ne mhm. ñoom ku ci nekk boo amee gel wala ay problème yooyu doxi yaaram da nga koy doxi yoonu Wally neewu ci mhm. ñoom seen biir ñi ànd seen biir sa ku ci nekk da nga am sa soxla lijjantil ji ko sa bopp sans waali bien am nga sa yeneen yeneeni nit mhm. moo ñi nga daan àndal bi nga amee cinq ans ba dix ans àndatoog ñoom ñenn lay doon ñaar nga dem ba ay nangam sàngam maa ngi nii at mii man yokk naa ci sa vie bu dee sa xarit ba nekk maris bi doon togg ak yow chaque jour dafa gis ni maa ngi yow ni ñuy wax téléphone bëri ni ñuy message de bëri bu gisee changement yàq na ko parce que maa ngi yow bokk liggéey. waaw ay gaañ. dëgg ñu waxtaan loolu la. loolu tamit dëgg ñeneen ñi dañuy ñëw mënuñ bañ waali ñeneen fekk si ko. mais tax ma fàtte tamit ñooñu. fàttewu leen parce que waali fàttewu nee naa la fàtte fàtte waali bu leen fàtte woon yaaram barki dem bu muy jënd kër du tracé ñëpp waay. d' accord jërëjëf nañu waxante dëgg rek. d' accord waali bu doon fàtte na leen. Mhm. barki dem moo njaay buy jënd kër pourtant ñii nga dégg. Mhm. mu mel ni ñoom ñu ngi tëb di dal est-ce que bokk nañ ci kër yi. waaw. Ah, bokkul ci ramadaan lañ wax ramadaan lañ wax maa la ko wax umro si la bokk maa la ko ñaan dama si wax umro dinaa ko dinaa ko suivre mais umro benn umro moo war a teeree ça veut dire que moom ne ah. euh, sais si gën a fës daal <laughs> mooy ñi nga xam ne nii waa ñoo àndal maa la jox information yi boobu. après saytul ñan la waali may kër. d' accord pourtant ñoom démb la woon ñoom rek la fa taraseel. d' accord ñoom rek la may. kon kooku fàttewul démb waay. dëgg la nañ nekk ay nit buñ siisu. amu siisu siisu baaxul. siisu maanaam nit ki nit ki booy ànd ak moom. Mhm. maanaam yokkute faaw mu am. dafa am di maanaam day day day daa am lu yokk ci vieux mu leen di neex nag mu leen di naqari fu mu ne nii boo demoon waali am na keneen ku dugg ci vieux nii mënal ko dara mais waali eh, waa lee gën a doon nit intérêt ñëpp de ma yëgal la ko fii barki <laughs> Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul waale du gis ku koy jox cent millions nii nii nii nii nii léegi léegi mu am ci di di la topp yow mi ko mënal cent mille francs defu ko yow sax doo ko def man duma ko def keneen ak keneen du ko def nañ réglé nañ nitee merci beaucoup ah. alors mu desal ñaari cas yi ay cas